xam nañu ne bëri na loo xam ne cere ju ñu siimee ndoxum xorom rek rek lay mos diggu bëccëg te yàpp booto boor fi ne fi ganaar yi ne fi jën yi ne fi xoolu ko xiiful lu dul sëñ Tuubaa biiram dara newu ci kenn newu ci ku dul sëñ Tuubaa sens la lool lool lool nga mës koo ji benn yoon waxuma laa nga mën a am sensu toog jàkkaarloog moom say loxo dugg ci ay loxoom nga wax mu dégg mu wax nga dégg nit ñi nag léegi dañoo jëm ci alal waaye loolu moo gën alali àddina bi yëpp teg sa loxo sa loxoom moo ko gën waaw te ñoo ne ma yoo dey euh, dangaa ëppal ci li ngay wax sëñ Touba may ne loolu tuub leen ko bu doon bu doon bu doon suuf si la joxuma ko lu tolloog benn poppi suuf bu doon suuf si mooy àqam waaw mënuma koo jox àqam danaa jéem nag waaye moom rek moom moo jar euh, jox àqam lii ñu ma am ci sëñ Muntaxa ak sama sens la yàlla mooy ki ma ko defal waaye ut ko taxu koo am moom la yàlla def mu topp ci tànki sunu bàyyi sëriñ Basiiru ca ñam wëllalante ci ca Kawlax di leen seen mu ñëw ci kër gi di dox tànki sëriñ Basiiru fekk ma fa mayit ma xam ni am na sens boo xam ne bu dee dafa ñëw ba fëgg sa bunt te ubbiwoo dootu ñëw len rek ma xam ne lii mbir yàlla la tële nañu sax di wax ma indil ko téere bi nga xam ni sama bàyyi ko bindu tagg yonent bi ak tagg woo xam ne daf koo tagg woon sëñ Tuubaa ci bindu loxoom ci njaareem ci foofu mu ne sëñ bi ci njaareem sëñ bu mag bi ne fa waaw ba mu ko bindee te eh, woy ci wax mooy def koo ne jox son baay kaamil eh, tafsiru jëlaale ni te kenn amu ko ci réew mi ku dul yow ndax joo jamono li muy jar ci alal kenn amu ko mu ne ko waaye jëlaale ni bi firiwul téere bi yow lay firi yow sëñ Tuubaa yow yaay alxuraan jiy dox tagg ko yokkul ci moom dara ndax yàlla tagg na ko ba noppi yonent bi tagg na ko ba noppi jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf ba sa xel sa xel jëkkee dem ci rek ndax loolu rek na amiin Mbacke yàlla na la fi lool yàlla yàggal la lool yàgg ñoo jiite lool réew mi nag ñëpp sa njaboot la même ñu ni ci di jeneen diine ca dëkk ci réew mi sa njaboot lañ mala yi sa njaboot lañ gàncax gi sa njaboot la nit ñi sa ngeboot la te yow macha allah waxuma la loo ñaan waaye lu lu dugg lu sa xel daj rek loola ya aaju ju fajul jërëjëf Mbacke Diop lépp cant sant yàlla eh, ñëw nañ fii tey di féddali kóllëre yi nga xam ni moo dox suñu diggante ak ki nga xam ne mooy sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké te jëmmal jëmmi sëñ Touba ci kaw suuf ñëw di ko ndokkeel ci weer wi ak ci bis bi ak ci leelatul xadar bi ndax euh, diggante bi dafa yàgg wax na ni yàgg na ba ci maam maaram Mbàkke ak sunu maam ju kowe mu ñëw ba ci sëñ bu mag bi jàll ci diggante sëñ Basiiru ak suma wàjjur góor yàlla def nag sëñ Muntaxaa ci mbaaxam jëmmi jamono mu nekk Kawlax doon dox tànk yi sëñ Basiiru daan ci kër yi mu ko daan mu dox ko fekk ma fa ca kër ga ma gis ko rek xam ne kii la kii la du keneen ma ràññeeku nga ba léegi nag ci mbaaxam mu di may baaxee ay ngan di jóg fii di ma fekk Kaolack di ñëw fii jógee fii di ma fekk Dakar ku nekk xam na ne bu doon alal mooy tax nit am sëñ Muntaxa dox ba ci yow kon kenn du ci jot waaye ku ne xam na ni moom faalewul alali àddina moom loolu la ko sëñ bi bàyyee tànk sëñ ba rek suba ngoon bu dégg ba cëg wax ko léegi ñu ko xamul xamuñu ne moom añ cere ju ñu siimul ñu def ci tuuti ndox mu ñu xorom mooy añam te mi ngi joxe euh, wataboor ku ne ak i ganaar ak leneen ak leneen kon nag buñ yàlla mayee ah moom it mu baaxee ñu kanamam gu leer googu ak macha allah di muuñ jëmale ko ci yow loolu ci bo loolu ci boppam ñoom àjjana kon nag. loolu tax ñu ñëwitam itam bokk moom njàngum xasaayit mi nga xam ne xasaayit yi xasaayit li tekki mooy jëmu fa mu jëm nag ka ko tax a xasdu mooy yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa rasulullahi waxi xaadim la ju jëm ci rasul te kon xaadim ak rasul kenn lañ benn lañ kon wax jooju wax ju kawe la yoo xam ne ki koy jàng ak ki koy déglu te teewlu ko mënu caa jëlee lu mooy njëriñ loo xam ne foog na njortam sëñ Muntaxa yal na yàlla bu dëw fanam lool mboolem ku sant mbakke ku mës a ci kaw suuf yàlla na ci dund loo xam ne kenn mësu ko ci dund boole ko ak ak wér e di sant yàlla di ñaan at mu ne yàlla may ñu ñu ñëw feddali kóllëre yi gii nga xam ne yàlla ak yonent bi ñoo